te ñibbiwuma wala timis léegi fekk na ma si biir fii léegi ma waroon na bàyyi ma dem balaa mu nekk di wax fii si wàcc mën naa wàcc léegi nag ko mo waɗi aussi ka o huɓɓi dalalga lawol mm. nagoɗo wutte on alakoa woni policie e mo darde ɓe awo ko kamen to nagoɗo ne jam policie o raɗi jeɓe ragomaɗ kono so wuji lalle kiki ko sikka oyni to wuji alle kikinde alakoa tan mune ɓule malal garabbi balama dembo mu ne lu loolu mu ne du ñëw guddi foofu noonu xam nga def dee ñëw guddi mu ne ñu tëdda te suñ tëddee rek suba dema dee gis deret te mu ne suñ soo leen defee garab bi moom du mun a ñëw foofu noonu ñun ñaar dinañ am problème Muhammad la. Aysatu Diallo. nga ne kan ma laa xaar. dafa am ku ma ah, ku ma dee ngénta. tey si guddi dama ngéntoon sax bu ma ah. nekkoon dina la. waaw waaye mu ne su ma defee diw bi dina ma xaar si yoon bi. mu ne. su ma defee mu ne bu ma laal garab bi garab mu ne su ma fa bu mu def rek moom mun na ko mun dina ko yaa moo tax daf dee ñëw guddi su waaye dafay tëdd ak man rek balaa boor set rek dama dee gis. te moom weer bu nekk la di ñëw weer bu si demee bi mu am 15 days rek ma commencé di ko jënd di dafay isuwaale police te ñoo ñu am fetel pour ñoo ñu lifin ma pour ñu hmm. mun a tëra loolu la day def. ana ana police yi nga doon gis. police yi dañ day yore fetel ñu ñuy ñëw ñu ne de dangay lifin dangay tëra ak ñoom bàyyi yaa ngi ko gis léegi fi nga taal yaa ngi ko. fu ma nekk nii gis nga ko. naka la bëtam yi mel. ah. lan lan lañ def bëtam yi. xaw ah, ma kaan ah, mu ngi def nii daal. bot bi xaw ah? ma danga bugg lifi mu ne bëtam daal fii yaa ngi maa si bot bi sax nekkul di gis. nekkul wax si bot bi. waaw ak noppam yi ak bi sax ñu ko yëg gaañ. noppam bi tamit dañ ko doon bon. Mm-hmm. dam na léegi nga donte la waaye nag su ma demul ci lu ma topp su ma wàccee am ko Buku ganteng. biir du ko topp te kooku kool na ko sax bëgg du ko topp dafa def def moom amuta sa jëkkër ak problème moom yow la amal affaire ko léegi ah kaane bi nga boppa bi nag suma boppa We go, go to somebody who understands full language to explain to her husband what has happened. Hmm? Yes. ana sa kalpe be ana sa kalpe be ay soo moom la lii kalpe la waaw ok lii lan la suma ID card ok delloo ko waaye mbuuba danga dem ba ah, eh, mu ne soo eggee kenn. bu ma ko sibi. déedéet bu ko sibi de. lii yëpp deret bi deretam deret bi lii deret bi deret laal na ma sa gis nga sa deretam bi. baadiŋolu ansumana jamme mu eh, president o eh, mi ye lon ko presidenŋo la ñiŋ mofin jararo ku bee be ate ansumana e jammele bloko kono e ate faŋo naata ke moti mi ye ko e tuma miŋ na a be muso do jara kaŋ mi ye ko ñiŋ kunto seitano bala la e wo muso la jararo kola muso ñiŋ na kunto seitano faŋo naata muruŋ ansumana kaŋ ka ansumana kelendi bokay ansumana jamme moom nak doom la ci president bi te itam moom moo jiite kuréel gi nga xam ne nii nag ñoo di eh, dimbale président ci faj ji nga xam ne nii mu ngi koy def di faji cosaan ak faji nit ku ñuul moom Ansoumana ci boppam bi nga xamee ni nii nag président am na jigéen yoo xam ne nii faj na ko eh, rab yi nga xam ne nii moo àndoon ak jigéen jooju leen dafa ñëw wëlbateku ci kaw Ansoumana dal di ko dal Okay, take her <laughs> out. moo ne moo ne de c'est-à-dire moo ne Fucking